kuréel gi lëkkale oto yi vidange yi nekk diggante Mbàkke ak Touba ak li ko wër ñoom itam tàbbal nañ seen loxo ci liggéey bi bile. lu tolloog ñaar fukki oto la ñu daal di yëkkati teg ko ci yoxooy commission sociale bi aju ci kuréelu Junnatul Liman Nazamaho ngir nag fësal seen yéene ci ndigalal Cheikh Mouhamadul Mountakha lile. ñëw daal tey ànd ci liggéey bi nga xam ne sëriñ bi woo nañu ci ñu ñëw wuyu ci te it muy sunub liggéey. dañoo soññ rek ñu gën a góorlu àndandoo ñun ñëpp kenn desul góor desul jigéen desul mag desul ndaw desul ñi séq secteur village ñëpp daal diggante Touba ak Mbacke ñi ngi ñëw fii ci barab bu tedd bi wuyu si kilifa gi nga xam ne moo ñu woo pour dimbale sunu mbokk jullit yi nga xam ne dañoo ne ci ay tolof tolof ci seeni biiri kër ñu ànd ko nag am ci xol bu sedd yu am ci mbégte am ci kontaante trop di ñaan tëje ceeg tawféexi Serigne tubaax waaw jàpp nañoo indi ñaar fukki oto ñaar fukki at daal jàpp nañ koo indi tey dañ koo indee nii rek jàpp nañ ne dina ko ëpp bu ànd ak dogal suñu borom. Sëriñ Abdul bu Bousso mi nekk ci boppu commission sociale bi aju ci kuréel gi ci ay kàddoom mu ngi sant ak gërëm di ñaanal kuréel gi ci jëf ju am solo ji nga xam ne nii ñëw na ci waxtoom. Euh, rafetlu tànk yi nga xam ne euh, regroupement bi lëkkalee auto vidange yi nga xam ne ñoo nekk Touba dox nañ ko tey ji jëm ci liggéeyu Sëriñ Touba yi xam ngi xam ne lii li Serigne Touba di liggéeyloo am nañ ci wàll tax ñu jóg ñëw jokkoo ak euh, comité bi nga xam ne moom la Serigne bi di liggéeyloo ngir def seen participation ci liggéey bi loolu lu rëy la lu rafet la ndax kenn ku nekk la ngay liggéey rek ci nga mën a jaamoo kon ñoom sen liggéey bii ci lañ mën a liggéeyale Serigne Touba moo tax andi nañ ko andi nañ seen i oto andi seen i taxaw ngir liggéeyal Serigne Touba ci bis bi nga xam ne mooy tey jii di dibeer di ñu war a euh, def lu toll ci juróom benn fukki voyage ndax joxe nañu toll ci ñaar fukki oto yoo xam ne benn bu nekk dana daw ñetti voyage loolu nag ni nga ko laajee niñ ko séddale ci dëkk bi dañ ko tasaare par ay secteur secteur bu nekk euh, ñu tànn fa ci ni nga xam ne noonu lañ ko demandé woon dañ ko coxat coxatee maanaam ngir mu bañ a nekk bañ a féete genn benn rek tax na mbooleem foo xam ne ñëwoon nañ fi demandé si vidange dañ bindon bindoon teg ngir lu mel so su amee bi loolu amee nag tànn nañ ci mbind yooyu ñu bindoon lim bu toll ne liñ joxe joxe ko ci boo léegi keneen ku joxe leneen ñu dolli ko ca loola noonu lañ ko tànnee. kuréel gi nga xam ne nag moo lëkkale mbooleem ñoo ñooñu nga xam ne dañuy yëngu ci wàllum autovidange ci fàttali rek nekk diggante Touba Mbacké ak li ko wër seen jëf ji nag ab soññe la ci mbooleem yeneen kuréel yi wala mbootaay yi nga xam ne nii sa seeni jëf nag mën a daal di tàbbi ci wàllu gi nga xam ne nii ñu ngi koy wallu askan wi nga xam ne danoo loru ci mbënd mi te ci jiitu di xalif général des mourides Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké